Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Free yep, yëpp ñu au ko Sénégal si anam yu mieux celle naturel jus Vito pour seen goûter dormi collation ca bureau ba Madame Bepaheo, bépp jus orange ngir may leen actonus. ak tonus jus Carasol amna, bar baax lool si yaram ak ay am solo gingembre bi de dafa baax lool si góor ak ay vertu baax lool itam si organisme buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit leen jus bissap bi Oh, oh dina yokk katan kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nak Vito so excellent pour fête bu monti doon te bar l'ol si yaxu gune ak mag emballage civilisé Tour. jus Vito da ngay am Vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Sakere malak. Sakere malak. Sakere malak. Eh, yow am nga bouton d'amour. Kan man. Eh, bouton yow yow yow booy yow lu tax nga tooy yow. man man man man jullit laa. xam naa loolu man bu ma ñëwee. waaw. ñu ne mu laal bul jege. waaye na yor xaalis. waaw loolu am na. yow yow yow moom da nga da nga da nga baax ci man. kii saay saay gën sañ. saay saay gis nga man gis nga man. gis nga man yow moom da ngaa baax da ngaa génn ñu dem não wax naa ko mu não waaw peut-être dama ko def man fii laa toog kan yàlla te fii neexul fii kër la Bébé Demo. Eh ma sanguma sanguma sanguma sanguma sanguma. Bébé Demo. Hmm? Ah jigéen ma. lu sedd ngeen naan gàtte leen. de laa bëgg waaw wuy ma yow sama xarit nga te dama laa amu fi de naanal sedda sax ñu naan aka naanal neex na quarante cinq la ma la waxoon laa lay waxaat say doom yi yaroo sama xaalis nag dan ko génnee ci nii wala ci nële ba nekk nañ sama facture xaalis facture bu ma leen jox. yu naan yu naan gënu koppi. wax naa la naan yu naan. yow góor naan. déedéet yow naana rek naana. yow teraanga teraanga kenn du ko delloo. naan leen naan leen séeri naana yow tamit. maa neex na man diirit baax na. bilaay baax na baax na. non merci. merci merci baax na baax na baax na baax na dégg non baax na baax na. muy jàng wuyu rek ak bandi nga xam ne ay kooba biir lañ fi fekk. fan yi sa xeeñaay ñii ñoo folo lu mën a gis yéene nii këtil ma ñaan dama leen a antal sama néeg ndax man tey jii mau ma ko dama leen a antal nee ma la jóg tuuti yëkkatil ma rek ma seen foro xaay yi tamit lii lii ci biir daal bàyyi naa la ñom ñoom xoolal ni ngay gérer ñoom ngi sama touba wax ba sa bëli ki toj ak seen foroxal sonu ci ñom man ma ngi di di bu ñaaw bii moom tëb leen toogal foofu jànk nag may baye yéeg ñii ko xamna la ma la wax sama dix francs nag ñetti amna pass taxi wo ki baat la woon eh eh eh eh eh eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh jógal. yaa ngi may seet. séenu ma la xaw ma si dara jóg leen laa wax. yaa ngi may seet. maa ngi koy seet. eh. jóg eh. leen. Eh. eh est-ce que yaa ngi. eh, eh xooluma la xooluma la xaw ma si dara. sama xaalis. sama xaalis. eh jógal. eh mbaa xool yaa ngi. xool yi feexul fenn dafa tàng bàyyi. ah man mbaa xool yaa ngi. jóg jóg jóg. mbaa xool yaa ngi. jóg leen jóg leen. eh sama xaalis. sama xaalis. ma ne mbaa xale yaa ngi fi eh? Eh, sama xaalis. sama xol feexul dafa tàng jóg leen laa woo. bu sama ndey xol yaa ngi. xol yi dafa dafa dafa dafa tàng. Eh. yéen maraan nii la méttee. Ah, yaa ngi wees. xoolal ah, gisuma leen bàyyi. Ah. ma lay mbéj de sama xaalis. non ma dugal si mbaraan. Eh, sama li poj asu rek. mbaraan ñu xeeñ. sama xaalis. Eh, xool yi fépp ñu dañoo tàng xam. Eh, ñaawaay rek doy bi. vingt cinq. vingt cinq sama xaalis. mi ngi sa sama xaalis. sama xaalis sama xaalis.